am plaisir am bànneexu tee li nga xamante ni 60 ans durant ñu ngi daw ci ginnaawam yàlla ñu koy doog a jox donc su ñëwee ba fii tey ñu may ñu honneur mu dugg si fii rawatina mu dugg ci biir Koungheul ça c'est une grande première donc ñu ngi sant bu baax président di sant ministre de sports di wax ne coupe bi comme ñëw na Koungheul incha allahu rabbi dina fi ñëwaat ñëwati fii parce que ñun nag aayu ñu gaaf ñun waa Koungheul donc ñu sant yàlla tey ñu ngi ci biir mairie bi bureau maire Koungheul ñu am possibilité dugal fi coupe d'Afrique des nations donc loolu plaisir la vraiment ñu ngi sant bu baax baax président de la république di sant aussi ministre des sports Matarba, Ba di sant bu baax a baax baax ministre Abdoulaye Seydou Sow moom mi créé initiative bi ba mu mun a ñëw fii ci région de Kafrine rawatina fii di Koungheul. nous sommes vraiment heureux de recevoir aujourd'hui le trophée ici au niveau du département de Koungheul comme vous le savez le maire vient de le dire hein, pendant des années on a couru des ce cette coupe-là. Aujourd'hui, nous avons gagné cette coupe-là. Et vraiment, nous félicitons vraiment les joueurs qui ont remporté la finale. Nous félicitons aussi l'encadrement technique, l'entraîneur, le ministre des Sports, mais surtout le président de la République, qui a beaucoup investi dans le sport. Si on a ce trophée-là aujourd'hui, ici au niveau du Sénégal, c'est grâce à lui. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Nous avons vu que la population de Kungal est sortie et nous sommes vraiment heureux de recevoir donc ce trophée-là. Le maire l'a dit, comme on l'a gagné une fois, je pense que la prochaine Coupe d'Afrique, ce sera une deuxième étoile pour l'équipe sénégalaise.